li ñu doon def nag euh, mooy madame la maire dafa am gan gu rëy goo xam ne day ñëw Kaolack suba muy le xalif général des murit sëñ Mountakha basiru Mbacké ñu koy ñaanal yàlla na yàlla yokk leeram di ko ñaanal yàlla yàlla na guddal fanam yàlla na ko yàlla may wér te yen bii nga xam ne moom la yenu ah, yàlla na ko waajuram wa maamam ba jàppale ba mu réussir mission bi nga xamantene mom lay mom la ko tek euh gan gi nak day ñew fi ci commune de Kaolack fekk fi madame Mariama sar muy maire Kaolack fekk fi madame Mariama sar taalibe seigne Touba mo waral tenak. nak mu yoni won ñu ñi nga xamantene ñom ñoy dalo gan ñi mu yoni ñu ay teranga si ñom ndax bu gan ñu ñewé gan ñi ay ganam lañu mo leen waron dalal moo leen waroon a ganale moo tax nag ñi nga xamante ne ci ñoom la gan ñi di ne mu yónni ñi ci ñoom ay ndimbal pour dimbale leen ci gan ñi ah yónni nañu ci pencu ndooran bi ñu dem ci sëñ Babacar Mbacke mu kabaro eh, di ko ziar di ko ñaanal moom it yàlla na yàlla yàggal taxawaayam fii ci Kaolack eh, dem aussi ci sëñ Moustapha Mbacke Abbas dem it ci alaaji Seyni Seck mi nga xamante ne moom moo fi toogal le xalif général des mourides li waral loolu nag mooy ak taalibe rek ndax madame la maire xam ne ne képp koo xam ne rek ñëw nga kaw Kaolack war na laa jàpp ci sa teraanga war na laa dalal war na laa tatagal rawatina nag ki nga xamante ne moom moo fi tey sëñ Touba di yaakaaram àddina ak alaaxira di wax waxuñu soxna a ne ko jërëjëfati jërëjëf mooy ki def benn yoon. waaye ki dëkk def ki saxoo def moom kooku jërëjëf dañ ko war a wax kon nag jërëjëfati donte ni ko waxee dëgg la ñoo ko bokk ndaxte suñu bokkum taalibe la kon maam gan gi mel moom lay gan si mel ni ak ganam sëriñam waajuram moo koy gan si moo ñëw ci ab yàlla tegaat euh, maire maam mu nekk maire kaw maire Kaolack euh, kon ba tey mu nekkaat ak ganam waaye nag dimbali nañu ndax tey mënoon na ko joxee neneen waaye nii mu ñu ko joxe moom mooy jàpp leen maam xam ma jàpp ma jàpp ci gan ñi kon euh, ñi ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëmati bu baax euh, di nangu ay jëfam saa su nekk ci noonu ak wet lii nga wax ne dégg sëriñ bi dama xoolee maa ngi koy ma sànq bi fi ñëwee indi nag wi ndax jëf ji maanaam teewut indi woon na aw nag ca ngoon dégg nga euh, kon dañ koy sant bu baax di ko gërëm bu baax di ñaan yàlla ak yonent bi ak bu baax boobu mu taxawu ko aar ko sàmm ko dakal galan ko yeb defal ko ngëneelu aduna ak alakhirah naka jek ku ko xam ku nek sama diggante moom sa yo waxe ba tuduma lamuy wax moy jàppee ma ko ab politicien sama doomi serigne la sama chamine la sama serigne la loolu moom mosu nekk waxam wa diru 2013 2014 ba legi dégg nga wala nga xam ne lii moom mosu nekk waxam waaw xanaa ma ñak ko di sama soxla wala mu ñak xam sama yitte sama yitte lepp lu mu ci xam inshallah allah dégg nga maam na mu dana ko defee dégg nga te da koy def ngir yalla ak yéen a jëmi sëriñ Tuubaa. na ngeen nuko santal bu baax. ëmbal nañ ko yiw ëmbal nañ ko ay ñaan nun nag mënuñu waaye sëriñ bi moom mënal nañu ci moom saa su ne damay wax jëwriñ yi ma àndal ci liggéey bi ma ne man de liggéey sëñ tubaab bi rek laa am képp koo xam ne rusuma la si rusoo ma see fekk rusuma laa jàppale àddina rusuma laa jàppale àllaaxira lu ma am danaa ko bokk ak yow loolu it wax dëgg yàlla loolu rek laa doxale sama diggante ak moom mbalem poroxaan mii ba mu fi ñëwee la si tàmbali dugal loxoom ndax dama ne woon mbokk yi nanuy def nun taalibe yi rek lu am def ci waaye Mariama kenn du ko ëppalewul ci sëriñ bi moo tax bi mu ñëwee yëg liggéey bi xam ne mooy meeru dëkk bi te it lu baax rek moo ko ñor moo tax mu di ci tàbbal loxoom boobu ba léegi yow mi nga xam ne moo yow la doxale suñu digganteek moom saa su ne lépp loo xam ne lu rafet la lu jëm ci nun yaa ngi koy dox di ko wax noo ngi leen di sant bu baax a baax a baax ñun nag ki mbooloo mi àndal muy daayira maam jaare yi nga xam ne dañoo amoon yéene bu subaa ñu teeroo sëriñ bi li mu Touba mu ñaar fukki booli ak juróom-ñett moom la ñuy waajal ni bëgg ko togg bu subaa mboolem ndox moo xam ne moom la gan ñu ànd ak sëriñ bi jëfandikoo moom la ñu waajal nii bëgg bu gan ñëpp ñëwee ba toog fenn fu ne ñu dem fa jox leen ndox mi jëfandikoo ba ngan gi jeex bokki taalibe yi nga xam ne yi tamit ñooy ñëw di ziyaare si ñu waajal leen ndox mële bërigo yi lañ koy yóbbu ak frigo yi yóbbu ko ca penc ma def foofu baas parce que yéene di ko di leen di leen teral ba ba sëriñ bii dem